wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli bi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf xafidahu llahu taala wa raahu wa ayyadahu wa zaada min nasrihi ñaan mu yàgg fi te ànd ak ba mboolem naan yi nga xam ne am na ko ci lislaam suñu borom may ko kattan ak lépp mu àggale ko mu kaw ñu xam def lépp ndigale ma yéenee ma taxawaay ma kon doonu ji lu weesu rek defal nga def yemal fii nga yem fii kon cant gépp dañ koy delloo ci moom ndax liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu mag bii nga xam ne ni nga ko doon def ci turu mboolem comité organisation bi yëpp nag ak mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp dañuy yëkkatiwaatu cant ak ngërëm di ko jëmale ci moom ndax Serigne Touba bokk na ci lim fàggul taalibe yi ci liggéey bi mu doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy képp ku bëggee ab jotaay la da ko mën a kon nag moom ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax mboolem li ñuy séentu ci moom rek weesu na ci faru diggam ak li ëpp solo mooy foo ko séen rek mu delloo ci yàlla te loolu mooy li jiitu ci li ñuy doy kilifa li mu jën yiite dëddu na lépp dama ko waxoon këram dëgmal boromam dëgmal Sëriñ Tuubaa lu du liggéeyee Sëriñ Tuubaa bi du itteem lu du jaamu yàlla du itteem kon dañuy ñaan mu yàgg fi daan di ndax taxawaayam mate na ko sëkk liggéey bi itam di liggéeyu bu màgg bi yàlla def na ba mu duggee ci suñu loxo ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu jëloon ko def ko jëwriñ ji keroog ba ñu taxawal comité organisation bi yàlla def na moo ñëwaloon boppam waxoon ci kàddu yu rëy ya mu ci waxoon kenn du ko fàtte muy la mu waxoon ne bu moo ko mënoon sax damay topp seen ginnaaw di di leen liggéeyal kon sëriñ bi liggéey bi fu mu àgg rek cant gi dañu koy tàmbalee ci moom ndax ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké joxe ndigal da ko ànd ñun taxawuñ ci ba bari na ci ñoo xam ne sax moo leen tàbbal ci liggéey bi benn ci seex Cheikh danaa koy fàttali waxtu ne ak ñu baree bari ñoo xam ne ci kilifa yoon yi rawatina ci waa majlisu shura bi moo leen jox ndigal ni leen ànd leen moom te jàppale kon moom muus cee génne loxo ba mu nekkee ci loxo bi tam lépp dañu ko bàyyi. bi fi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke nekkee itam seen diggante ñëpp xawoon nañ mu jël lépp teg ko ci loxoom waaye mu jëlaat lépp bàyyiwaat ma ko teg ko ci sama loxo ci doy na ko bi mu doonee Serigne itam fu mu ko fekkoon rek da koo yokk gën koo dëgëral sàmm ko waxtu bu nekk loolu la may fetli li ma bëgg damay dëgëral ak sàmm la te loolu ñu ngi koy dox suñu digg moom kon dañ koy sant di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne li mu jël lépp moo tax yàlla ko fay. di gërëm nag mboolem ñuy saqaloon liggéey bi yëpp tàmbalee ci waa mujj suuraa bi ba agsi ci waa comité organisation bi ci jiitalu Serigne Ousmane euh, tudd ñi ngi sant comi commission yëpp bàyyiwuñ kenn kenn ku ci ne la la war ci liggéey bi def nga ko ci rafetal waxoon naa kon jëru del si waat euh, waxtaan yi ngeen fi waxtaan yi itam lépp ni ko sëñ am leeral léegi lépp ay wax lañu rafet li Serigne Ousmane wax li Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo yor communication wax li nga xam ne euh, Serigne Abdoul Ahad Ka ni jiite commune Touba wax na ko ak li nga xam ne professeur li mu dee ak ñoom àndal wax nañ ko yëpp ak ba Serigne Moussa Moussa ñu yor wàllu ndox mi kenn ku ci ne la mu wax wax ji leer na kon jëru del si waat kon jataay bi li ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisub cant te sant kat dara gënu ko màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee ay bi ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñu borom wax na ko fu baree bare bare cant nag la ci jiitu booy cantu cantu xol mooy wa maa bikum min ni'matin fa la ak cantu làmmiñ mooy la in shakartum na ko ba ca des mooy cantu jëf yamalu ala dawru waaye nag dégg ngeen daje suñu borom te ko wax qalilun min ibadiya shakur kon sant lu jëfe na cheytaane bi nga xamee ne suñu borom dàkku na ko ba génne ko bokk na ca lam sartante moom summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim ak tajidu aktharahum shakirin loolu nag moo tax alxuraan boo fa demee walakin akthar annaasi lu bari bari na ca walakin aktharuhum la yashkurun kon sant yàlla lu jafe la boo demee ci alxuraan itam dana fa bari lool foo xam ne da ngay dégg suñu borom di ci wax ne qul man yunajjikum min zulumaati albarri walbahri tad'uunahu tadarruhan wa xufyatan mooy li taalib yi def la in anjaytanaa min haasihi lanakuunanna mina a shaakiriin mu ne xulillaahi yunjikum minha wa min kulli kabin suma umtum tushrikun kon day mel ne sant gi ba amul rek shirka day dugg Sëriñ Tuubaa nag ci biir fàggu gi mu ñu fàggu nga xam ne lépp da ko fàgguwale moo tax ba muy nekk ca tukkeem bu tedd ba ci wala xad karam naa dégg nga mu wax ne yashirru yi li tuuba waxmini waqini azal wara waltutib li zamma iskaana azal wara ji mbas mi tàbbi na ci biir waaye lam ci tegaat laka chama wal araadi wal hawa bila musharikin kon nga xam ne daanaka boo santul rek dugg nga ci sirke waaye lépp suñ suñ Tuubaa fàgguwaale nañ ko ndax suñ borom dafa wax ne bàkkaar bu mu mën a doon rek danaa ko jéggal ba mu des bokkaale moo tax Sëriñ Tuubaa bokk na ci lim gën a tàggat ci taalibe yi mooy tawhid moo tax xasaa yëpp ci tawhid la ko kon nag dañuy sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuubaa euh, Cheikh Mahoudou Mountakha itam wane na sëkk ne mat nam Sëriñ Tuubaa ndax ku fi nekkal Serigne kat fàttali naa ko ba tey du samay wax waxi Cheikh Abdoul Ahad da ko wax ju gudd la dafa wax ne Serigne ci biir bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da cee fagguwaale xutbaani yéegi du génnati ak njabootam mu ne nag sëriñtuwaa nag ba mu xamee ne amul ñaar amul ñett tamit te lim yor di leen te mënu ko jox kii bàyyi kii dafa jël lépp dajale ko ci waxande mu jël waxande wa nag lépp lu mu am mu def ko ci biir jël ceeb ji teg ko ci loxo ki mag njaboot gépp kenn mënta àgg ci waxande te jaaroo ci ki mag waaye moom itam sañut kenn ñëw laaj ko mu joxule ci ndax seen àll li bàyyi di ci biir mu ne jataay boobu ne balaa caa kenn toog danañ la peese ak bindeef yi ba nga de ñu door la faa teg bu ñu la peese ak bindeef yi te watoo leen nag ñu dooleel la ba nga mat ko ñu door la fa teg mu ne boobaa nag lépp loo xam ne balaa la buy wàcc balaa wàcc kaw suuf danga ci yanu ba diis ba doy ba doyal sëkk mu door wàcc ci naka noonu itam lépp loo xam ne aw yiw la balaa wàcc ci kaw suuf dana agsi ci kaw nga jël ci ba mu door wàcc ci nit loola nag lii fii jataay bi toll Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na ko ci lu bare bare ndax ñoom dañuy gis lu ak siwut te loolu la ñuy doy kilifa kilifa donc day xam loo xamut moo tax dañuy wax ne boo nekkee ci sa kanamu sëy danga war a mën ne kal mayiti bay na yédeel xaasili ci mooy danga nga ko topp nit ki nga xam ne am néew ko koy sàng fu mu ko jëmale mu jëm fa moo tax it euh, wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma xatahu wa ma huwa salabu lixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari ndax loolu damay fàttali moom bi yi wàcc ci àdduna wàcce mboolem li nga xam ne suñ borom da ko santaane ndax naa inna kenn lahu fil ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan kon loolu suñ borom ko digle ci alxuraan mboolem luy sabab ya daa santaane na ko ñëpp def ngir wane ci aw yoon te digliwu koy bàyyi waaye da caa jiitu lam ci war a def mu def ko ca waaye itam li nga xam ne mooy ndigalu suñ borom nag da ko jiital loolu itam suñ borom far na ko ci ba ci màggal gi itam ba mu santaane ne ne ñëpp xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne nag la ci Cheikh Ba Fati waxoon ci kër gi la ko waxoon ci Darou Manane gii Serigne Touba du ma sant mukk ma dul def te du santaane mukk lu dul am loolu nag taalib yëpp jëfe nañ ko wane ne Serigne Touba du santaane mukk lu dul te du ma sant mukk lu ma dul def foofu la yëpp nekkoon roy ci seen kon. loolu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xamee ni li xew lépp lu mu ci mas di def ñii lif àdduna si na mu ko waxale boppam di cee dégg ñoom yàlla def na man seere laa ca ba ma yónnee ci ci jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéen jëm ci am ak li mu ci bëgg la ma wax mooy te wax naa ko ci tele bi ñëpp dégg ko yaakaar naa ko arrière bandi da nga ko ci fekk ñee ko li moo ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rek ci am kon nag yey na ñëpp kon nag wanee na ne lam doon wax ci yaqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju solo ci biir ba bërki démb rek waxat na ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax nekk Tuubaa de dañoo sedd ne jàngoro ji jeex na fa wàññi na mooy loolu nekkul ci suñ ginnaaw suñ kanam la suñ Tuubaa noppi ne ci lañ ko bàyyi ci loxo bi waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñu fooyee du lu ñu bàkkoo itam kon lu ñuy sant Sëriñ Tuubaa waaye du lu ñu bàkkoo kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak wéet lu bëree bëri nee na mbirum baatin bu lu ñuy foyee du lu ñuy caaxaan mbirum Sëriñ Tuubaa lañ ko bàyyi moom waaye nag du lu ñu bàkkoo kon ñun li ñu war bàkkuñ dañuy sant te euh, Sëriñ Tuubaa dafa alxuraan dafa wax ni ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis moo sëriñ bi lépp lu ngeen dégg mu wax ko ci ak may digg ma borom foofu la ko teg qultu wa xasdi taxaddusum bi ma lii qaadahu wala yurini niqama kon ñoom dañuy xam lu ak siwut waaye lii ko sëriñ Touba sagale ci kënamu àdduna wane na ne sëriñ Touba tey la fi gën a ne sëriñ am sori jaxat daana ko wax nee na kuy nattam ne sëriñ Touba nekkatu fi kon boo amul dara ci basiratu waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha yaqin ji mu amoon ne jàmm rek xew wane na ko ndax ñii nga xam ne ñooy wàllu gi wane nañ wax nañ ne màggat gisuñ benn jeexit mu am jàngoro yi kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne te bañ koo bàkkoo Cheikh Mouhamadou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne ko may Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa biiri nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla doo koy gën yokk kon nag ñun nag li ñuy Serigne tubaa defal ci biir adduna laay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu adduna sépp la ne te Serigne tubaa xartalul mbiram képp ku ko sopp rek tàbbi nga ci biiram kon ñu itam nañ ko ko nañ ko sant yàlla sante ko Serigne Touba damañ ko baaxoo boobaa kat tawféex rek lañu jural te xam ne Serigne Touba njabootam dafa yaatu te moom wax ne bind na ne. li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man boo demee ci rabbi bi maay show rabbi bi maay show yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin irham alwara loolu fii la ko taarife ci daaru manaat gi ñu nekk tey kon moom yërmaandem wa rahmati wasi'at kulla shay'in kon Sëriñ Tuubaa mbirum xatu dafa yaatu kon na ko ñëpp yaatule eh, kon lii lii nag loolu lañ ci mën a jàng mooy gën a góorlu mu gën a yokk yaqin suñ digg Sëriñ Tuubaa te xam ne mbirum Sëriñ Tuubaa nag ni ma ko waxoon nag lépp xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne boo doon dàkk sam xel wala les gi di jox du bokk ak ngay gis ndax ñoom ci seenee nattuwaay li waxoon mooy bu bu bu nit ñi buñ dajee wàllante bi dana bari kon bu ñu xëyoon ay téeméeri nit mu leen di dal itam dañuy jàpp ne loolu mooy li war a am waaye nag lii xar baax la xar baax xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne ba baaxuñ ko gis moo tax am na kilifa bu baax gu daa wax ne mbirum Sëriñ Tuubaa lépp day xar baax baax nag boo ko bëggee xam danga nga koy jaarale ful bu baax kon gën a sant yàlla bu baax rek te wattandiku itam la Sëriñ Tuubaa mujjoon a wax ca ndigalam yu mujj yi Cheikh Mouhamadou Mountakha bokk na ci li gën a wax ne nañ ko fàttali nit ñi Serigne Touba dafa santaanoon ci waxtaan yow mujj ci njariñ na nañeen fexe fexe ba li dal diggante nasaraan yi ak yahuud yi bu mu leen dal mooy waxaalatil yahuudu laysati nasara ala shay'in waxaalati nasara laysati yahuudu ala shay'in te loolu gis nañu mi ngi bëgg xew ci jamono mooy jullit yi di xeexante ci seen biir wala ñuy mel luy wujjante te ñoo xam ne ñoo bokk fuñ jëm la ñuy wax bu dee dëgg ci ñoom euh, la leen juyeel bariwut ndax la ëpp ci ponk yi ñoo ci bokk dëppoo bokkuñ nag ay yoon yu njaar ngir àgg ci yàlla loolu jërul xëccoo jërul waxante lu ñaaw jërul boddikonte ndax loolu ay yàqari la jur te Sëriñ Tuubaa wax na ko fu baree bari laaj yi ko laaj yëpp itam tontu ya mooy julli yëpp ak njabootam bi daana ko wax Sëriñ Son bu laa ko déggee daa wax ne day xës bu xóor nag muy wax ci tudd ci yenn ci nit yàlla yi di wax ne ñëwee ci moom ba mu nekkee ci géej gi am kenn nitu yàlla ku mu tudd ne kooko de ku yéeme la nitu yàlla dëgg la ndax ba muy jébbuli ci man de ci ak ngeer la ma fekk ci géej gi daa dagg boppam joxe ak nitu yàlla daane moo tax nag bëgguma kenn ku bokk ci yoon muru ku leen di wax dara ndax ñi ci ëpp seen seenu njaboot ñëw nañu fi ba jébbal ma ne kon sama njaboot la Sëriñ Tuubaa kon yaata xatalatoon bi da ko kon nag nañ ci góor bu baax te xam ne Serigne Saliou ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an Serigne Saliou nag am na luy fi ma sa xew ci juyoo yii daa am ci biir weer yi bañ dikkee ba wax ba noppi mooy leen li ngeen wax lépp de lu baax la na ñun de ci ngeen ñu fekkoon waaye nag damaa am tuuti lu ma leen di jàngal mooy xadis ba dafa wax ne ixtilaafu ummati rahma wajtimaahuwaa sunnaan sama xeetu bu ñu wutee rek yërmaande suñu borom la daan leen yërmaande googu yërmaande suñu borom jooju di wàcc ci ñoom nag mëtu leen a dawale kon nañ xam ne ay juyoo bu amee ci yu mel noonu itam nañ ko jàppe noonu rek jàpp ne du yàq dara kenn ku ci ne la nga na nga gise jàpp ne moo gën a jub ci saw yoon rek na la ko ñëpp war maa la te sàmm